ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te dañu ñëw ngir anticiper benn débat mettre ko fin mu jeex ñu bañ cee manipuler ak ndax askan wi rawatina ñi fas yéene jóg ngir défendre dëgg débat boo xam ni bàyyi leen ci xel tey lundi jëm suba mardi yem ak bés bi ñu jàpp ngir. ubbi dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko ci tribunal ñenn ci ñi ñuy wooy ay expert mbaay analyste politique te ñëpp ràññe leen ci presse alimentaire wala boog ci les médias mensonges moom lañuy ñuy jéem dugal ci bopp yenn sénégalais yi muy Ousmane Sonko na dem wuyu ji yoon ñëpp la fi nekkal bu dee deful ñu jox ko dëgg bu dee moo def ñu appliquer li loi wax. loolee di piège ndëgg sërëx boo xam ni ku ci yeewul ba tey parce que xamoo ci yan contexte yan anam la ñu organiser procès bii te moom lañ leen bëgg a leeral pour que ñi dëgg rek ñor xam ni liy jox ndam Ousmane Sonko ci dossier bii du tribunal du àttekat du ay preuve yoo xam ni moom da koy indi teg ko ci table bi liy jox Ousmane Sonko ndam jeunesse bi la ak mbedd mi. li ñenn ñi di bañ a dégg muy xeex li ñu bëgg leeral foofu te gars war ko xam dès maintenant parce que booy xeex dangay xam li ngay xeex lu mu doon ak lu ko waral mooy Ousmane Sonko gars yi condamné nañ ko ba pare li tubaab naan condamnation avant l'heure daan doomi aadama laata sax muy samp tànkam tribunal lii moo am ci dossier sonk Sonko Adji Sarr léegi lii ku ko xam ba noppi luy wut ci benn théâtre benn mise en scène boo xam ni dañ ko organiser pour taxaw di la saaga ak jéem a xotti sa waruma alors que ki la tuumaal moo wax diggante làmmiñ ak nopp ci ci lii ma nekk ay caaxaan képp la ay kàcc la diw ak diw ñoo ma ci dugal. Ah. waaw. moom moo tëgg lépp moom moo tëgg lépp moom moo ma wërsëg ba gis ma man xaw ma woon kan la mais dafa Sidi moo ko waxoon ne am naa benn cible boo xamante ne Mamour Diallo ñu dugg ci dem maître Sow yor naa benn lii nii li yoo xamante ne maître Sow moo ko bind si loxo numéro jox ma ko dinaa la ko jox maître Sow yaa maître Sow ñoom ñëpp. ils n'ont pas un très mort. waaw ñoom su ma waxee enragé wu leen seen nguur dafay daan. bu baax. moo tax ma bëgg yow nga ñëw nga toog. xam naa ne li ñuy wax nii yëpp ay fen la yaa ngi dégg mais ñoom mhm. bëgguñ nga wax moo tax ñu garder la te suñ xamee ne dangaa nar wax yaa ngi dégg mhm. luñ lay def dañ lay bëgg a liquider dañ lay bëgg a parce que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow bis boo waxee tas mhm. àddina kon kenn gis ni ci dossier bii ñoo ngi wax ay preuve ak rapport gendarmerie enquête waaye preuve bi gën a leer te setal Ousmane Sonko ba mu set wecc ci Adji Sarr la bàyyi ko ndax moo ko wax ci lu kenn fekkewul moom ak Baye Mbaye Niassam si ak yàlla mu dem sax ba ni jour biñ ko yóbbu CTO ngir gynécologue caytu ko digganteem ak Ousmane Sonko dara xewu fa. ñoom mu wax ne dama retourné waat li nga xamante ne duñ ko def say ni doom déjà loolu noonu c'est benn affaire bu grave ñoom ma dem dama waat pour ñu am expert même. après ma demaat ce jour ce même jour j'ai j'ai appelé maître mais une semaine après maître m'a appelé pour ma dire que le gars il est là man xoog waa ji ñëw na fi de parce que damaa duggoon cabine ak kenn mën na ko ñëw na mais def deful dara dafa ñibbiwaat mën na ko ñëw na mais deful dara dafa ñibbiwaat mais deful dara dafa ñibbiwaat mais jour boobu si euh, ci bi def yi génnee ñi féete ci nguur gi ak na naafeq yi ñemewul dëgg ne mun naa doon montage ndax technologie développé na ba bu la neexee nga topp ndoor baatu jàmbur wax lu ko lu mu mësul yëkkati ci kàddu doyen des juges. convoqué Adji Sarr bu su mardi 20 décembre 2022 ne ko ndax audio yi Baye Mbaye Niass MC génnee dëgg la am déet mu ne waaw dëgg la maa doon wax waaye dama doon fo dama ko doon seetlu alors que moment yi ñuy wax a yéen ay sénégalais day gor sàccuñ fenuñ kumplowuñ ñu mën ci lim Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne Mortala Gueye Pape Ndiaye Bassirou Diomaye Faye ñii ci wax ak bind kese lañu leen jàppe am ñoo xam ne jébbaluñ leen sax convocation dañoo wax walla bind ñu dem jëli leen ci saa si tëj leen kaso ba tey jii ñuy wax ak yéen ñoo ngi prison mais bu dee aji Sarr mi nga xam ni dafa wax lu dul dëgg ba lu ëpp fukki ndaw ñàkk ci seen bëkkan koo xam ni pendant des semaines en mars 2021 tax na activité réew mi yëpp taxaw ñu jàpp ko ci ab waxtaan muy nettali ne li mu doon tuumalaate yëpp ay kàcc la woon dañ ko yebal ba joxe turu ñi ko sant loolu de des juges Maham Diallo dogay woolu ci njëkk ak teraanga laaj ko ndax lii yaa ko waxam déet mu ne waaw man waaye dama doon fo ñu ne ko waaw léegi mën ngaa dellu sa kër léegi ñu ne ñu dañoo nekk ci dëkku yoon askan wi dañoo war a xeetu magistrat yi pour ñu àtte dëgg kan la ñu mais ba tey ñu ne d'accord aji Sarr supposons dafa doon kaf ndax ci wàllu viol li gën a ci lu yoon mën a sukkandiku mooy la preuve scientifique maanaam ku jigéen kiñ ne dañ ko violé ab gynécologue caytu ko xool ndax tëddee nañ ko waaw wala déet ci dossier Adji Sarr gynéco bi ko xool dal di bind ci rapport ne waxtu yu ndaw si wax ni dañ koo sàkku gisuñ dara luy màndargaal sëy lii rek waroon tax dossier bi ñuy yamale ko gendarmerie section de recherche fa yëf yi tàmbalee Ousmane sonk buy baale te yàlla rek tax mu jéggal ko bu dee day topp yëf ci wàllum yoon mu dem fa mbaxana doone benn mais non seulement duñoo jël un dossier vide boo xam ne daray preuve viol newu yóbbu ko ci table doyen des juges ba noppi ñi tëgg complot bi di jéem a corrompre gynécologue bi def rapport médical bi ngir mu soppi dëgg bi docteur Alfousseyni Gaye lank ñu koy menacé ka jéem a rey. Euh, diw moo ma yónni médecin moo ma yónni mu ne ko lu ma buggoon mu ne ma nga oo ko mu ne ko non fu mu toll nii maa ngi liggéey mënu ma ko oo mu ne ma c'est urgent ma ne ko du ko oo. nen si see genre dama ko mu ne ma ok waaye daf ma jox benn yóbbante pour yow ma ne ko jëluma yóbbante delloo ko mu ne ma ah ma ne ko waaw bon ci loolu wax joojule suma euh, assistante hôpital euh, service bi dugg si ma def ko siñ mu taxaw waaye la a ouvert les yeux xam naa ñàkkul na gis na xaalis bi mhm. xaalis nga bañ ko. <laughs> ah euh, mm, eh, jëluma ko daal. mu ne ma docteur vous êtes en de cracher sur beaucoup d' argent ma ne ko oui peu c' pas important euh, ce qu'il y a lu ci am solo moo di jëluma ko delloo ko boromam. Euh, te man seede laa bokkuma ci dossier bi bokkuma ci affaire bi donc seede laa mais lu may dund. metti na trop fàtte naa aussi wax la amul semaine mbëkk ñu sama oto amul. ñu mbëkk sa oto. mbëkk sama oto amul lenn la trois quatre personnes ñëw mbëkk la tuuti taxaw nga wàcc kenn wàcc dem jëli sa portable donc euh, lu may def toog tranquille dugal suma portable suma poos wàcc. bon que ci ginnaaw la y a pas beaucoup de dégâts parce que dama sonn je suis je suis fatigué dama sonn metti na trop je souffre beaucoup ragal naa nag dëgg dëgg ragal naa waaye dënk naa sa bopp yàlla mais j'ai peur pour ma vie parce que j'ai vécu ce dossier je connais un peu de ce dossier j'ai vécu ce dossier donc euh, ragal naa dëgg dëgg ragal naa donc lii rek preuve la ci ne du si aji saar tappale ak caaxaan moo ko lal docteur bu def rapport médical am ñu ne ko changé li rapport bi wax wala ñu rey la di ko topp di ko persécuté subaak ngoon te li ci gën a garaaw mooy lii yëpp docteur Alfousseyni Gaye leeral na ko doyen des juges muy Maham Diallo tuddal na ko turu ñi ko indiloon aji saar ba noppi doon ko jéem a fay pour mu wax lu dul dëgg soppi rapport médical bi expliqué na ko itam li muy dund comme bakkanam mi ngi ci xortu gerte Maham jàll sëgg loolu lépp ni dëgg intéressé wu ko moom li ko Macky Sall sant muy jéem a inculper Ousmane Sonko moo xam moo defam deful loolu moo koy teel. ngeen gis ni kon depuis njëlbeenu vidéo bi témoignage yeeg rapport médical beeg li topp ci plainte bi lépp dafay duggal aji Sarr maanaam ci dossier bi même bu ñu dégluwul woon Ousmane Sonko teewul yoon mën a xam fi dégg féete atte te yàlla rek tax waaye teewul d'ailleurs foofu ngay xamee ni réew mi ak bëri naa feq dañ ne no Ousmane Sonko wuy ci yoon na dem jàkkaarloog doyen des juges teggi tuuma bu dee am na preuve ni lii complot la mu jébbal ko alors que ci wàllum viol ki tuumalaate ne dañoo yegg ci kawam kookee moo war a indi ay preuve ci ne dañ koo sàkku mais ba tey li coow li di bari bari Adji Sarr mosul indi preuve ki ñu tuumal moom la rapport médical bi ñëw setal moom la ñi moom bërëb bañ na lay fi xewe woon teggil tuuma moom ci wàllu boppam moo dem ba ci doyen des juges jox ko benn rapport d'enquête boo xam ne gendarmerie moo ko def ne complot bi ndekk du ñoom Mamour Diallo Gabi Sow maître Dior Diagne ak Sidi Ahmed dong ñoo ci newoon di ci liggéey ci suuf mais ay autorités yi war a doxal yoon ci réew mi dañ cee tàq rip. rapport bi wax ni Serigne Bassirou Gueye bokk na ci complot bi ndax ni mu ci bokkee. PV d'enquête bi nga xam ne moom la di def dañ ko modifier ñu déglu ñi nga xam ne ñoo nekk ci dossier bi muy commandant Mbengue ak capitaine Touré ñoom ñëpp ñu ne Serigne Bassirou Gueye moo modifié PV bi moo leen sant ne leen changé leen lii moom capitaine Touré bañ ko moom Abdou Mbengue nangu ko rapport boobu nga teg ko ci loxo euh, juge d'instruction est-ce que juge d'instruction rapport boobu rek doyoon na jar woon sax yeneen yëpp est-ce que juge d'instruction boobu waroon na renvoyer dossier bi donc éléments yi yëpp daje teewul Maham Diallo renvoyé dossier bi chambre criminelle te dañuy àtte Ousmane Sonko alors que durant phase instruction bi yëpp mboolem éléments yi daje dafa ñëw setal ko ba mu set wecc mboolem ñi témoigné dañoo ñëw teggal ko tuuma teewul ñu inculpe ko loolu dafa baax ñu koy leeral ñi comprendrewul ci dossier Ousmane sonk bi ñu yóbbu chambre criminelle Maham Diallo da cee bind. neen lañ ko toppee wàllum viol ak menace de mort ba boole ci Ndeye Khady Ndiaye comme complice maanaam àtte nañ ko ba noppi ba ci daan biñ ko war a daan lépp prévoir nañ ko pour gën yàq dossier mu fekk 2024 ba toog di xaar ndax askan wi dañu leen di seetaanam déet moo tax comme niñ ko waxee ci suñu ndorteelu vidéo bi Ousmane sonk li ko mën a may ndam ci dossier bi newul tribunal. newul ces juges corrompus yi nga xam ne Macky Sall moo leen tànn jox ay ndigal pour ñu exécuter procès Adji Sarr Ousmane Sonko mbedd maa koy àtte soit lépp nooy ne lasar Macky Sall ak juge am am fit def lu leen neex matale seen yéene wala résistance am ci mbedd yi ñëpp taxaw waajal seen bopp ñu dellu ginnaaw teg lépp ci suuf ñu bari nag ñu ngi laaj ay stratégie taxawaay bi ci mbedd mi. lu ci nekk def nañ ci vidéo ba créer ko playlist tuddee ko Free Sénégal mi ngi fii disponible ci chaîne bi ngeen di seen vidéo bi ci mujj matul ñaari weer ñoo ngi ko def le 26 mars 2023 kon ku ne xam na noo war a taxawee yow ak ñi nga bokkal benn localité te di partager benn ngëm-ngëm li ci des détermination la ak liñ naan responsabilité personnelle maanaam boo toogee wéet yow dong yëf yi lu mu la jaral gis ni lii mi ngi xew sama réew ban devoir ak ban taxawaay laa ci war a am millions jeunes yi nekk senegal bu ñu taxawee temm lu ñu bëgg ci réew mi mooy am bu Macky Sall dajale woon GIGN BIP armée ak i mercenaires benn koñ rek booy junni ndaw génnee néew leen kàttan mbooloo ak détermination mooy xeex kon na gars yi mobilisé wu. kon taxasalu bi tey loolu woon ñu leen gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa jëf